sa goxub kumbam lamb tëngee ci yéen a kaay groupe des médias nee na loxo dara na fa gémmañ de loxo dara dina fa gémmiñ njombe laa ngi xewee kon ba diis na lool dama ne bilan ba diis na lool laa la wax juróom ci ay doomu aadama la ñu fa ñoo a génne laa la wax nii Le Quotidien yéene ne bilan baa ngoog de juróom ñoo ca faatu juróom ñett jële ci ay gaañu-gaañu tribune yéene kaay daal di dikkaat nee na fukkaax ñett ñooy victime ya ñoo nekkoon ca taax ba laa la wax nii sa ñooñee jàppale ne juróom yi tàgge nañu leen ay ouvrier la woon nekkoon sa chantier ba l'observateur di ko dëggal yéene kaay groupe Futur Média nee na juróom lañu ci ay ouvrier yoo xam ne nii muccuñu sa ñoo faatulaa la wax nii ba tax ba màbbee seen kaw Le Soleil yéen kaay ne bilang baa ngoog aha loolu mooy dëgg sax juróom lañu ñoo faatu l'observateur daal di dikkaat nee na man mi observé njombeel maa leen di xamal ne kon ñu sa jële ay gaañu-gaañu am na ci juróom-ñaar yoo xam ne ay blessé léger Le Regard yéen kaay ne boo observé man maa xool la ma gis de ak jag-jagalaat laa la wax moom la loolee moo jéggi dayo waaye gaañu lañ mat nañu ba génn si juróom ci ay néew ministre bi ñu délégué ci ministre de l'intérieur moom Birame Faye dikk na fa sa délégation boo xoolee ba ca biir bu Dakar ma nga ca woon Alassane Sall dikk na def constat bi beneen constat ba ñu def l'indépendant yéene kaay nee mooy yuuxu wàllu ga nga xam ne avocat bu Ousmane Sonko def na ko enu naay loxoom de moom maître Ciré Clédor nee na fa mu nekk nii nag béy mu combat libération immédiate d'Ousmane Sonko la def moom maître Ciré Clédor Ly avocat bu Ousmane Sonko la def deux minutes pour lire l'essentiel ne ko yow maître dama ne boo waxee daf feebar kay wax ñu lu ko jot son kaw de quoi souffre Ousmane nii la ko yéene kaay bi bind laa la wax nee na Ousmane Sonko mi nekk ci kaw ani moo ko dal faw nga wax ñu ko dak maître Ciré Clédor Ly ne da ngeen ma tontu leen rek deux minutes pour l'essentiel da métti dem ba Ousmane Sonko mënatul dara yaram bi lépp bañ maître mooy wax de maître mooy wax de ne ay waay waay waay xanaa gisu leen kii dama ne boo leen ko gisoon di ko yërëm ñaar fukki fanaa ñaar ci wéeru bii barki déem boo njaay dañoo tiir ndax kat ñun ay avocat am ba ci médecin personnel am laa kenn jox ñu autorisation kenn jox ñu autorisation ngir ñu mën a gis Ousmane Sonko déet waay maître nen lii laa la wax moo ñu tiital lii rek nag moo tax may wooteeg wàllu Ousmane Sonko dama ne na lott na le mandat yéene kaay ne ko maître dama ne wooteeg am na solo nag waaye nag lii yëpp ko Ousmane Sonko di dund ak yaramam bu jagadee dama ne mooma ndax nag moom soobu ci ab xiifal ah kay moo soobu ci ab xiifal ndax nag maître yaa gën a xam ni ku bëgg akara da nga ñime kaani ndax xiifal gu mu sumb nii xam na ni ndama nga ca gàccaa nga ca xiifal gii nga xam ne moom la songu te koo baax lii rek nag moo tax yaramam jakadi waaye du leneen la mandat yéene kaay ni waaye solution mën na am ndax xalif général kullu murid yóbbante na ko ay tàndarma mu ngi koy xamal ni jëlal ci lii nga daal di dog ca xiifal googee ndigal la waaye ndax ndigal loolee Ousmane Sonko dana ko dégg ndax ndigal loolee mën naa sowe soldat patriote bi loolooy laaj bi nag le mandat yéene kaay samp na laaj bi de kon tàndarma ya ka xalif ba jox koon jotagu xalif ba tàndarma ya mu ko joxoon suuf so aani ba léegi Ousmane Sonko ñamagu ca de moo ngi ci vingt-sixième jour bu nga xam ne grève de la faim la ndax waa ji dana jël ca tàndarma joojee ngir mën a dok maanaam dat ja le point actu ne ka aha kay Sonko prend date nag avec son destin date ba mu ngi ko bindee tàndarma de waaye date bi mënees nañu ko tekkee ni rendez-vous point actu na grève de la faim ak yóbbanteb Serigne Mountakha bu dee président Siré Clédor lii àbb na rajo yi woote nag wàllu boor bu ne waaye waa ji ne déggu ko de waa ji déggu ko joxu ko nopp bu baax bi te maire bu Ziguinchor it ñaani bañ naa la woote ala accu gatsa gatsa bi la woote ba ci grève de la faim bi gatsa gatsa googee la ñu laa la sunu intellectuel yi l'enquête yéen kaay ne nawle daa foor de dama ne nawle daa foor waaye nag sunu intellectuel yi fu mu nekk ni xamuñu loolu ña ngay yekkante lu mel ni xemee la ka waral du lenn lu coowal politique bi ku nekk jël position diggante nag bindkat bii di Felwine Sarr Boubacar Boris Diop ak yeneen intellectuel yi ñoom nawle ci boppam defante de ña ngay defante ku nekk nag yaa ngi yekk sa morom lu mel ni xeme ndax lan tension politique bi fi ñu toll nii débat contradictoire la am ci borom xam-xam yi l'enquête yéen kaay ni déet dama ne déet waay naw daa foor nag te ay naw la ngeen suuf kon Ousmane Sonko it seen naw la kay yéen koy seetaan de ndax nag radiation bi nga xam ne def nañ ko ci fichier électoral yi commissaire bu jëppal ba mu demee ca këram fekk ko fa dafa naar Ousmane Sonko bu jógee rek pavillon spécial ñu jébbal ko bataaxal ba bataaxal bi nga xam ne moo koy notifié di kaw a nag bokkatoo retiré nañ ci fichier électoral ba ndax ba fii jotagu ko nag moo ngi sa pavillon spécial critique yéene kaay ne ku wax ci liy wax ca la dama ne suñu société civile bi lu muy nuru société civile bi safuñu yàpp safuñu jën kenn xamul lu ñu nuru laa wax critique yéene kaay mooy wax de nee la société civile mën nañu ci bii boor taxaw rek ñu yekk ko lu mel ni xamee ay manipulateur ay calculateur waaw coowal politique rek la topp daraay askan wi ñoru leen du samay kàddu di critique yéen mooy wax de nee na suñu société bi am na si ñoo xam ne daraay askan wi ñoru leen politique bi la ñuy di dóor bàcc muy leer société civile fii ci réewum Sénégal daram yàqu na yaxeet critique yéen mooy wax de du samay kàddu nee dañuy màtt fii nga foog ne fii la ñu dem di ëffale moo fa doxantoo l'exclusif yéene muy notable ya di imam yi nee ñu kenn la bëgg ñu teg ko de kenn rek la bëgg laa la wax nii président Macky teg ko muy seen candidat mu di Abdoulaye Daouda Diallo ADD kii rek la bëgg nag alerte yéene kaay nekk déetuwaay Abdoulaye Daouda Diallo ngeen tànn waaye bu leen fàtte Mame Boye Diao mi ngi ci course bi de plein président Macky la kenn mënu koo weddi te mu ngay buuxante fu mu nekk ni task force républicaine bi di sàkku ci ñoom candidat yi di leen xamal ni waay waay bëgg nañu élégance si yéen waay waay àndaleen ak élégance si li ngeen di def lu waayoote ci li ngeen di def ndax président Macky Sall kat moo leen def li ngeen doon nii kon nag lu waayoote bu leen ko fàtte le mooy yéen a kaay ne bu leen ko fàtte de candidat la présidentielle 2024 bi may séen nii muy dikk Arouna Coumba Ndoffène Diouf nee du ma si doon seetaankat déedéet du ma si bokk ba ca biir laa la wax acteur lay doon Arouna Coumba mooy wax de ci le temps mooy waay waay sénégalais yi nag war nañu xam ràññee te gis ne la muy doxal nii yëpp moo di dafa bëgg des si gi wax na du def troisième mandat de waaye li muy doxal nii yëpp ay pexe yu nga xam ne da koy teg ngir mën a des si nguur gi ba léegi man maay wax Arona Coumba Ndoffène Diouf nee na dama ne notre politique d'industrialisation fera du Sénégal une grande puissance en Afrique maa ko wax Arona Coumba Ndoffène Diouf nee na boo leen ma falee ay boo ma ñamee man toutes les dépenses seront à la disposition des Sénégalais ku mën xam ne moo dal Ousmane Sonko acharnement mooy livrer sa version nii ci la témoin yootul le point actu moom dikk na feneen de nee na waa Fatick festivage yi sont darajaal nañu jaajëfal nañu Bamba Sarr de l' artisanat yaay leader sans frontière koo xam ne nii Fatick fu la neex daagu ndax li ngi fi def nee ka doomu Fatick nga de waaw Fatick pur sang buñ doon jaay Fatick nga am ci sa wàll de l' artisanat ndaw yi Fatick ko yaay sunu yaakaaru ëllëg de bee boo nga xam ñu xool fi réew mi toll laa la wax jamono ji fii réew mi toll moo di ñàkkum doom gi maanaam takk sa jabar ñëpp la ñuy xippi seen i gët di xool kaña la soxna si laa la wax di am doom ñaari at ñetti at ñeenti at ñu ne waa util keneen te xamuñu lan moo tax ñoo am doom lépp ñu jël ko nag jóor ko soxna si soxna si mu ngay def témoignage si yéenekaay bi nee na sama jëkkër ci boppam dafa bañ a àndax man ngir ñu dem consulter wu ji ndax dem nañu juróom-ñetti at yu nga xam ne nii doom ñu joxoñ ma baaraam boor bu ne ba xajatuma fi laa la